ci HLM bokk ci gox yi gën a rëy ci dëkk bu tedd bi di Touba ay junne nit dafa yeewoo jamono yi nag jafe-jafe bi gën a fës askan wi di ko dund moo di ñàkk ay làmp maanaam këb lëndëm këriis loolu nag mu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci ñenn ci ñi nga xam ne ni daje nañu fa ak ñoom ñu ngi koy dund diirub ñetti at askan wi kat ne na dañ leen a ginnaawal ba mel ni dañu ko fàtte loolu tax na nag ñu ngi yëkkati ay kàddu di naqarlu ak a ñaawlu ginnaawal googu nga xam ne ni jàpp nañ ne mairie bu gannaawal na ko quartier bi nga xam ne ni moo di HLM ñenn ci ñoom ñoo ci yëkkati ay kàddu. man damay laaj Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne moo yor dëkk bi du ma wax lan la ko waa HLM de dama koy wax lan la ko waa Darou Khoudoss def na boo jëlee Darou Khoudoss ba passé Aliya lamp yoo xamante ne ñoo méegul ñooy am lu man ñett at ñu nekk fi te benn mun see tàkk. ndax lëndamaay bi mën nañu presque diire na depuis daaw ba ren. ci màggal daaw jéeg ci lañ ko defaroon ba ci màggal ren tàkkul beneen bi. làmp yi yaakaar naa lu man ñaari at wala euh, jëm ñetti at ba nëgën si dañoo am lu ñu naqari li ñu mooy mën naa ne ba fi xalifa général bi jógee ba nëgën si gisatuñ ñu ci dara muy alaaji baara ñoo ngi koy ñaanal yàlla yokki leeram. lëndamaay bi moom euh, foo ko natt weesu na ko muy lu méttee métti lu ñu dund loo xam ne. Eh, dañu naan fi mu daanaka ñun rek ñoo koy dund ci dëkk bi. tey nag ay at ci ginnaaw wax dëgg yàlla dund ñu woon lu mel ni ndax bi fi sëñ Baara di nekk gis nañ ne eh, defoon na fi ay tali yu baax yóbbu ko ci ay penc yu bëree bëri defoon fi tamit ay làmp waaye fii may waxee yow ci 2020 bii ñu nekk nii asilem insécurité bi. foo ko nat rek wees na ko te insécurité li koy indi li ci jiitu mooy lëndama. ñàkki làmp yooyu nga xam ne nii nemmeeku nañ ko ca quartier bu mag boobee di HLM na ay loraange ak ay tooxi doone yoo xam ne nii mën na koo jur ca quartier ba bokk na ci nag mun sukkandikoo ci kàddooy askan wa ñàkk kaaraange goo xam ne nii nemmeeku nan ko. waaw yaa une semaine de cela ñëw nañ fii dajji sama sama boutique dañ leen a fin ñu dem fii nii ci bu guy gi àgg nañ fa noonu noonu plus de cinq boutiques dajji nañ ko fa. loolu daal mooy suñu problème majeur doo daan éclairage public euh, bon ça fait euh, deux ans presque deux ans c'est trop xawloo dafa metti sécurité rek waaw ñàkk sécurité rek parce que fii moom dañ koy dajji guddi gi mais lëndamaay bi li ko li ko gën a dimbali ci la bokk lëndam rek ñàkk sécurité rek nga lëndam moom du xewal. mais ba ba boobaag ah non xam nga place moom ku ko daj ku ko dajji rek ñàkk sécurité rek doy problème bu ñu fa yóbboo dara place moom lu fa jógee ba ba doon benn musu tàngal la sax metti waaw place moom mu ne su ko dajji rek lu ñu fa jëlee rek muy doon lu ndaw ngeen ngeen bëgg na ku ñu bëgg ku ñu ci dimbali rek mu leer rek su ma nee leer moom mooy xewal gi daal xewal gi daal moom na ci baax moom mi ngi mel ne fii at kenn dëkku fi kenn xamuñu ci àll bi lañ ne kenn xamuñu ci banlieue bi ñu ne te ñun ñu ngi fi dëkk ñu ngi ñuy sàcc di toj guddeeg bëccëg kenn ñemewut a dox bëccëg kenn ñemewut a dox guddi asaleen sonn nañ daaw ba leen màggalug ren gii ñaaw na ci ñu ne ñun am nañ ab communauté rurale te amuñu ay lamp yu tàkk ñun dañoo mel ni ko bokkul ci dëkk bi. sàcc yi sonal nañu parce que tëli bi boo ko xoolee gis nga seen bopp amuti làmp mooy li ma ko si tàmbalimaay bi rek dañ fiy ñëw di ko daaj barki démb rek mujjee daaj fii bitik fii ba guy ga bari na bitik yu daaj dañ fi agressé ni di këf jigéen ñi bu ñu jógee fajar gi di dem Dakar dañuy jël seen pochette yi seen téléphones yëpp dañ koy jël ngir lan ngir amul éclairage lampe yi ngeen fi gis néew ñun ñoo ko ci def suñu xaalis waa koñ bi jàpp seen fukki dërëm seen juróom ki cent franc ñu ko def si ay lampe te fii ku ko xam-xam ne agression bi bari na euh, cambriolage bi aussi bari na fii bu timis jotee waxuma la yónni sa doom waaye yow ñemewu dem sax ci boutique ba kon loolu lu mette mett la lu doy waar la loo xam ne ñun ñu ngi koy dund. nit ñi nelawatuñu dangay dox euh, vingt heures ñu këf sa téléphone ci boromi Jakarta fii bërki dem rek am na ndaw soo xam ne seen buntu kër lañ jëlee téléphone am saaga ko ne ko duggal ci biir kër gi. ndax ab lëndamaay ko kii koo ci topp mu dugg ci mbedd yi du doo ko gis te li ko waral lépp mooy day lëndëm ndax fi ne koy topp doo ko mën a xam fu muy jaar. oto yi riim yii bari na ci ñoo xamante ni waxuma la riim de waaye bu guddee guddi lañ gën a mën a dox ci bëccëg lépp sàcc yi ci yépp lay ñu yëngu. waa guy mbind nag def nañ fi taxawaay bu rafet ñun nag ñun fii lañ am waa Belel yii nan nu dimbali yokk suñu taxawaay yokk yokk yokk sécurité bi suñu leen woowee ñu gaaw noo wallu waaye bala ñu ñoo wallu fekk sàcc yee dem nañ ba yàgg te sàcc yi dékkuñu fenn lu dul ci koñ bii gannaaw ñàkki lamp yooyu nga xam ne ni nemmeeku noonu ko foofee ci HLM ba tax mu jur ñàkk kaaraange gi leneen loo xam ne ni askan wi ñu ngi koy dund bët bu set moo di ab tali bu ne ñaayi ñàkk ay tax na ñu koy méngaleeg di péage Ila Touba yàlla xamante ne mënoo fee toog une semaine te accident amu fi li ko waral mooy tëli bi lëndëm na oto bañ nañ ko autoroute lañ tuddee tëli bi ndax daa xudus ba daaru xadim li ma ko waxoon rek benn doo daanu moo fi am te doon dem ba daaru xadim bu ñu kër Cheikh Bass foofu ñu def ko fa foofu mën naa ne mën nga faa toog 24 heures wala 48 heures yoo xam dara du fa romb. bind nañ ci sous lu ne def nañ ko taxul mu sotti muy ay doo daan yoo xam ne koñ bi ñu ngi koy ñaxtu ñu dëkk ci tëli bi yor ak njaboot nelawutuñ ba yandoor muy guddi muy ba bëccëg oto yi yi nga xam dañ leen di tuddee ay réem muy oto yi nga xam ne valable luñ ak yi nga xam ne sax duñ ay réem oto la la fi rombee noo xam ne day mel na yow autoroute à péage bi la la romb loolu nag insécurité mënu ko weesu melokaan wi nga xam ne ni nag HLM ñu ngi koy dund jamono yi boobaak léegi toll ñetti at nekk na melokaan woo xam ne nii jéggi na dayoo ndax xam biñ ko nemmeekoo ak léegi mboolem fi nga xam ne nii am na nañu yaakaar ne dinañ fa dem ngir am fa saafara dem nañ fa bokk na ci mairie ak préfecture di ñi nga xam ne ni ñoo fi nekkal nguur gi boobaak léegi nag mun sukkandikoo ba tey ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci askan wi fépp fu ñu dem ay digge do xawloo dafa metti wax dëgg yàlla fu ne nag jooytu nañ ko fa mais ba tey amuñu suite waaw loolu suñu problème la amul benn devoir bu nga xam ne si imposé nañ ñu ko ñu ñu bañ ko def ñi ngi koy def ni mu waree au retour seen ñoom li ñu war a defal ñoom defuñu ñu ko loolu mooy suñu problème. ñun daal ñu ngi sàkku ndimbal comme Touba mënoo def en euh, mars leer rek nga mën def ndimbal jooytu fi nga ko war a jooytoo def li nga war def ñun bu fekkee devoir citoyen yi def nañ ko parce que def nañ bind nañ demande yóbbu sous préfet bind dem na sëriñ a dem léegi nag ñoom lu ñu bëgg laay laajati parce que bi yu ndaw détail yu ñàkk fu lu wax ñàkk kaaraange gi nga xam ne ni itam nemmeeku noonu ko fii ci HLM mën nañ ne benn ci quartier yi di Touba lu ëpp ci quartier yi boo fa demee lu mel nii la ñuy jooy waaye li ëpp ci askan wi itam benn kàddu dong la ñuy wax benn baaram dong la ñuy joxoñ muy mairie bi moo deful dara ci dëkk bu tedd bi di Touba.